alhamdulilahi rabbil alamin alqail fi muxkami tanzilihi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab laallakum tattaquun wa salaatuhu wa salaamuhu ala man ursila rahmatan lil alamin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 mu nekk aw melokaanam woo xam ne moom kenn dong moo ko melokaanoo man ko ndax kii xatte feeg ma ngiy laaj rek xam na lu mu xamut kii atte feeg mi ngi enquête am na lu mu bëgg a xam waaye ki mën a xatte dëgg mooy ki dul laaj kenn waaye moom la ñuy laaj ki mën a xatte dëgg mooy ki dul enquête ndax xam na li xew kooka nag kenn rekk la mooy rabbul izzati wal jabarut mi nga xam ne mooy alimul xaybi wa shahaada su boobaa nag mbubbam mooma di melokaanoom woowa bu la ko xabalee yow attekat bi waay waay sagalal yàlla ci mbubbam mii bañ koo tilimal sagalal yàlla ci mbubbam mii bañ koo gàkkal sagalal yàlla ci mbubbam mii bañ koo yàq bu ko tilimalee jeng bu ko yàqee nangoo lekk nger bu ko bu ko ëyibalee far ñetti yi àtte bu mu dugg yàqu ko mënoo àtte fekk yaa ngi far mënoo àtte fekk yaa ngi nangoo lekk nger mënoo àtte fekk tamit yaa ngi jeng fokk nga sànni ñetti melo yu bon yooyu di yàq mbubam yàlla mi remplacer ko doylu remplacer ko dëggu remplacer ko maandu xamale képp ñaar ñi nga xam ne ñoom ngay xatte nga jël xatte ba teg ba yépp teg ko ci ala daw il quran wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa teg ko ci leer ak alquran bii di leer gu dul fay teg ko ci leer ak sunu si yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag su boobaa yàlla dana nangu ne yow sa ngëm gi wér na ndax wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaayikumul kaafiruuna am na fa ulaayikumul faasiquuna am na fa ulaayikumul zaalimuuna am na yonent bi tamit nee na xàttekat yi ñett lañ ñaar ñëpp safara lañ jëm waaye kenn ka rek ay dem aljana ki xamul dossier bi bëgg koo xatte safara la jëm ki maîtriser dossier bi xam ko carrément waaye lekk nger walla kupp wala jeng wala far tax na mu xatte lu dul dëgg safara la jëm mu nekk ca mucc daal mooy ki xam dëgg dossier bi carrément atte tamit li nga xam ni mooy dëgg ak lu ko ca mën a fekk doonte day ñàkk place ba kooka rek mooy mooy mooy dem ci xàttekat yi aljana yeneen ñaar ñoo gën a bëri mu ne safara lañ jëm su ko defee nag yàlla moomu nag mooy wane ne su ngeen bëggee dund gu dal bëgg dund gu teey bëgg dund gu sell maa ngi leen di ñaan mënu leen koo amee ci lu dul na ngeen dànkaafu ngeen siiwal ci seen tribunal yi ne ku rey dañ lay rey foofa sax dafa daan kaa foraj su leen bu ngeen wóoree ne ku rey ñu rey ko mu leer naññ ca société bi wallahi kon rey jeex ndax waa ji bu ko wóoree péng ne bu reyee ñu rey ko dana ñoŋel bakkanab boppam bi lu waay bañ bañ bëgg sa bopp ñoŋel gi muy ñoŋel bakkanab boppam bi ci lay dëggaale ba ñoŋeexaale bakkanab moromam bi moo tax imaamu Sujaaj wax ne ida alima rajulu annahu in qatala qutila amsaka an il qatli fa kaana fi dalika xayaatun lilladi hamma bi qatlihi wa li nafsihi li annahu min ajli alqisaasi amsaka waaw waaw mu ne su jaaj nee na waaje bu ko wóor ne bu reyee ñu rey ko dana dana ngëbu bàyyi rey su boobaa nag dundu xam na kon dundu xam na ñeexal ko waaye ñeexal tamit ki nga xam ne dafa yittewoo woon ngir rey ko moo tax kon nag li yàlla ne walakum fil qisaasi xayaatun wax ju sew la wax ju xam-xam balaaxa la waaye ñi xam xam-xam rek am xel mu sell ñoo ko mën a dégg waaye ñu fi nekk jàng tubaab naan droit de l'homme ñoom bañuñ ko rey nit liñ bañ mooy rey ki rey moom lañ bañ waaye ki moom ki xas dee moom seen yoon nekkatu ca demal seeti saahir bi nga xam ne dafa woy maanaa aaya jooju dafa ne abu liir aba malikin xan ni mu xalxalatan wa fi l-itaabi xayaatun bayna aqwaami mu ne waaye jotalal ma Abaa Malik jëlee ci man mu jokkale ba ci ma ba ci ba fu mën a xegg ne yedd gi ci la suñ dund nekk ku def lu defuwut ñu yedd la su boobaa ñëpp danañ dem ba baxi lu def lu defuwut ñëpp xam ci jàmm waaye nit ki bu ko hóoree ne bu rayee dara du ko ca fekk kon xamatul kenn ku bakkanam am sécurité yow mi nekk borom kër gi amatuloo sécurité sa doom yi amatuñ sécurité say soxna amatuñ sécurité say mbokk amatuñ sécurité ndax ñi rey tey te dara du leen ca fekk ñaari xati kaso ñeent ñi génnee la moo tax ray gi bëri wallaahi moo tax kenn amatul sécurité ñiy fekk nit ca àll bu lëndëm bële mu yore gétt nagam yore ko porfooram ay woyu ñëw maskawu fekk ko fa dóor ko fetal kenn ku ne taxaw ci koñ ku ñëw bëgg a wallu fii dóor la fetal rey nit ñi ngir alal yóbbu ko ñii taxaw di ak agressé ci kaw yoon wi ñii taxaw di ak agressé ci ay camion yu yàqu yi ñii di agressé ci làmp yu lëndëm yi xam ne buñ leen jàppee tamit kenn du leen rey loolu rek a tax waaye billaahi bu leen wóoroon ne buñ leen it jàpp di leen rey loola jeex tàkk te yàlla kan reyagut kenn dafa dànkaafu rek ci biir dànkaafu ki bu ko ñëpp daa kooree rek rey jeex moo tax gis nga aaya ji aaya ji li muy gàtt-gàtt wane na xikmatul qisaas waaye wane ko tamit bi uslubin laa yusaama wa ibaratun laa tuxaakaa moo tax wér na ci alquran ñu ne aaya ji mu ëpp balaaqa ci mbooleem aaya alquran yépp aaya ji moo ci ëpp balaaqa walakum fil qisaasi xayaatun daw aaya ji fasax loolu kenn mënu ko xudul yàlla déglul ma wax la nag sew sewi balaaka yi ci nekk aay ji dafa jël safaanam mu làmboo safaanam wa min daqaiqi albalaagati fiha an jaala fiha didda mutadamminan li diddihi dafa def safaan mu làmboo safaanam safaan ba mooy dund dund bi la bëgg a wax safaan dund mooy dee fa bëgg a wax ne ci rey ci rey ci ngeen di dundee loolu xam nga ne xel rek moo ko mën a jëli wa huwa alxayaatu al fil imaatati alxayaatu fil imaatati dund piir mënu leen koo am lu dul ngeen rayee waaye ñu ne waaw rayee fu ñu see mën a jëlee dund ndax kooka rey nañ ko kay fu muy dundee fekk na mun a rayee sax du far faraxam wallahi bu ngeen daan kaa foo nit ñi ne leen ku ray ñi ray la moom dana dund dundal ki bëggoon a rey ngeen xam jàmm moo tax kon an jaala fiha didda mutadamminan li diddihi wa huwa alxayaatu fi limaatati allati hiya alqisaasu mu jeex waaye tamit xoolal baatab qisaas da koo maarifaal jël baatab xayaatu nakkiiraal ko pour xamal ne nekk na ci xeet nekk na ci xeetu maanaam dund nekk na ci xeetu dund aw xeet ci ci ci dund goo xam ne gu màgg a màgg la ndax wa arrafa alqisaasa wa nakkara alxayaata lil ishaari bi anna fi haasa al jins nawan min al xayaati aziman laa yabluquhu al wasfu billahi yàlla rek a yàlla jël baatab qisaas ne wa fil walakum fil qisaasi maarifa la waaye nag mu ne xayaatun xayaat mu nakiral ko pour xamle ne nekk na ci maanaam xeetu ku ku ku rey ngeen rey ko nekk na ci xeet ak dund goo xam ne gudul jeexati la te goo xam ne kenn mënu koo melal dellul ca tafsiru ulusiyu ci téere bu ñu tuddee ruuxul maani wax na ci aaya ji wax joo xam ne a nekk na ci gaayatan fil ibdaa wal jamaal wax na ne walakum fil qisaasi xayaatun ne kutiba alaykumul alaykumul qisaas foofu dëgëral dafa bëgg a dëgëral bakkan alal inqiyaadi lil xukmil qisaas dafa dafa jublu ci wax ji kutiba alaykumul qisaas dafay dalal sa bakkan pour mu mën a xommatu jëm ci mën a appliquer xàtteeb yàlla bi ndax xam na ne bakkan dafa dafa tiis ci bakkan lool muy mu maanaam muy rey maanaam muy rey moromam moromam bakkanam waaye fekk na dafa gàttal wax ja ci loolu te fekk lim ci fekkoon ñu ko daan wax mooy al al qatlu anfa min al qatli loolu la doon yaaraab yëpp di wax jàpp wax ju fasaa waaye fekk juñ wax ji moo ko gën a fasaa ndax boo jëlee walakum fil qisaasi xayaatun moo ko gën a néewi xaraf boo ko jëlee xaraf yi ca tudd yëpp fukk rek la su fekkee xalamuñ tanwin nga muy xaraf fekkee xalamuloo tanwin nga muy xayaatun jóge def ko muy xaraf ala ala xiddatin su boobaa nag boo ko ca boolee day nekk fukki xaraf ak lay doon kon moo gën a néewi xaraf bu njëkk ba bu njëkk ba walakum fil qisaasi xayaatun moo gën a néewi xaraf alqatlu anfa min alqatli ñaareel ba maanaam itraat ba ca nekk it fii kulli qisaasin xayaatun maanaam nekk na ci bépp ak fayu dund loolu rekk la mun leen a dund mukk lu loolu da tëral ak fayu waaye loolu nag wax jooju nekku ci wallay sax kullu qatlin anfaalil qatl duhun ne ray gu ne moo gën a dàqal ray waaye ray goo xam ne dafa tegu ci ak tooñaange boobaa ña nga tooñoon fayuxaat rayaat ñooñal fayuxaat ñee kañ lay ray gay jeex kon wax jii moo gën a nekk moo gën a nekk waaye su fekkee nag bala ngeen a ray bakkan bi dafa koo wóor ne dafa ray ngeen door koo lam def nii ngeen def ko ko ray jeex mu jeex ku ko gisat ne lii ah su ma rayee li njëkk kii lañ may def man de kon dootuma rayati kenn ndax ma mën a dund. wax jooju kon moo gën a xiyaasahu moo gën a jub ndax kat fii kulli qisaasin xayaatun waaye walaysa kullu qatlin ansa lil qatli ah fa in fa in al qatla zulman addaa lil qatli rey guñ teg ci tooñaange kay dafay woote ak rey rek bi dul jeexati ñetteel bi tanwiin gi yàlla tanwiin xayaatun tanwiin la goo xam ne tanwiinu ah, maanaam nawiya la ak tanwiinu ta'zim la ngir ak màggal loolu xamut ca alqadlu anfa min alqadli waaye tamit xoolal ma tibaax bi ci nekk ci balaaxa ndax tibaax bi mooy baynal xisaas ak xayaat dañoo dëppoo boo ne xisaas xayaat ndax xisaas bi mooy xadlu la jël la la la la def ak muqaabala la la fi remplacé mais nag da diggante nag xadlu ak xayaat ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo def tibaax ñoom ñaar kon nag ndax xisaas bi. dafa nekk loo xamee ne ni tafwitul xayaat la fa huwa muqaabiluha waaye juróomeel ba tamit nafsu ala ma huwa al matlub bi zaati mooy yaxal gi nga xam ne dafa nekk lu ñuy sàkku ca jëmm ja aani li mu bëgg a wax alxayaatu fa inna fal qatla innama yatlubu laha laa li zaatihi wallahi su fekkee ne rey dafa dafa nekk lu dàq lu ñuy sàkku la ca moom waaye du lu ñuy sàkku ca jëmm ja waaye nag boo indeelee wala comme fil xisaasi xayaatan ci jëmm ji lañ koy sàkkoo juróom-benneel ba garaaba gi ci ne tumurante gi ci yàlla def gi mu def min haytu jaala shay'a fiihi xaasilan fii diddihi jël mbir ma def ko muy safaanam wa min jihatin fil masruuf ida xawaaxu zarfu saanahu ani tafar ani tafarruqi waaye ndab kay su fekkee lam def nga ca sotti dootul dootul dootul teqali kooti kon nag fa kaana al qisaasu fii ma naxnu fii yaxmil xayaat min al afaat xisaas gi kat dafa nekk loo xam ne ci ñun dafa ñuy xaaral dund gi ci bépp gàkk-gàkk waaye juróom-benneel ba juróom-ñaareel ba alxuluwu min a takraar wala kum fil xisaasi xayaatun xamul maanaam takraar te alqatlu anfa min alqatli am na takraar boole ko tamit wala kum fil xisaasi xayaatun moo gën a neex a tudd ci alqatlu anfa min alqatli kon xusubatul lafsi wa salaalatuhu xaytu lam yakun fii maa fi qawlihim min tawaali al asbaab amu ci alxafifati is laysa fi qawlihim min tawaali al asbaab alxafifa is laysa fi qawlihim xarfaani mutaharikataani mutaharikaani amu ci ala tawaali illaa fi mawdicin waaxid wala shakka annahu nag yanqusu min salaalati lafzi wa jaryaanihi ala lisaan boo jëlee al alxatlu anfa min alxatli toftalee xarakaat ya ya ca nekk xamul ci walakum fil qisaasi xayaatun moo ko gën a neex a tudd téeméeri junne yoon ci diggante euh, sukkoon ak xaraka jigéen sukkoon ak xaraka lim li mucc am ci toftaleeg wax ji amul ko ca waaye tamit nag xadamul ixtiyaaj ila alxayfiyati wa qawlihim yaxtaaju ilayha loolu xamu ci ñàkk a xaajowoo ci ni melokaanoo goo xam ne dafa xam ci al alxadlu anfa min alxadli amu ci wala comme fil xisaasi xayaatun mooy maxrifa gi maxrifaalal xisaas def ko laamu jinsiya muy tegtale dëggi dëggi bi la xatte li mu làmboo ala kulli xaal ci dóore ci jam ci ray ndax bu nekk xisaas rek xeet yu bari la dugal xisaas bi mooy ku fëkk bët ngeen fëkk bët dugg na ca ku dagg loxoom ngeen dagg loxo ku damm baaraam ngeen damm baaraamam lim dugal dafa bëri dugal rek waaye beneen xatlu rek nga wax al xatlu anfa min al xatli mais indi ko dagg nopp indi ko dagg bakkan indi ko damm baaraam indi ko damm tànk kon bii moo gën a matale ci fukkeel ba tabaarakallaahu ak sa sa fukkeel ba boo jëlee fukkeel ba ak benn nag qul huwa min afaala afaala tafdil ba nekk ci muy ak boo xam ne dafay def defee ana fi tarki nafyan lil qatli aydan fii nag boo ko seetee lépp xamul benn afaalu tafdil xamu ci walakum fil qisaasi xayaatun fee nga ne alqatlu anfa min alqatli kon su boobaa indi nga lu gën a loo dàq lu gën a kawe kon bàyyi nga leneen lu nekk ci suufam la nga dàq moo gën a moo gën a moo gën a dàq kon xam na luñ dàqut moo tax min afaala al muhim ana fi tarki nafyan lil qatli aydan waaye saani xasara istimaaluhu ala ma yasihu lil qitaal làmboo gim làmboo ci loo xam ne dana yéwén ci rey huwa alxayaat bi xilaafi qawlihim fa innahu yastamilu ala nafi eh, ca dàq ga kon nag loolu duñ benn waaye fukkeel ba ak ñett xulluwuhu amma yuhimuhu zahiru qawlihim min kawni shay'i sababan lintifaai nafsihi mbir moo xam ne loolu amu ci maanam wéetam ci lépp loo xam ne saahiru seen wax ja dana ko def def la ci nekk ak mbir ma di sabab ci dàq ak jëf yëf ja te loolu nag muhaalun ila xeyri zalika dëgg-dëgg daal fa subhaana man alat kalimatuhu wa bëhërat ayatuhu te kooka du kenn lu dul rabbul xisati wal jabaroot kon gis nga wala kum fil qisaasi xayaatun ni mu fasaaxee li mu làmboo ci balaaxa tabaarakallahu ak fasaaxa ak li mu làmboo laaw ci ay maani lii lépp boo demee ca tafsiru ulusiyu di ruuxul maani moo la ko ca seggal wax ca wax joo xam ne ju rëy rëy la kon nag yàlla rek a yàlla suñ bëggee xam jàmm daal dañuy jël xatteeb yàlla yi di ko appliquer waaye feek ñi ngi fi bàyyi xatteeb yàlla bi di sukkandiku ci suñu xatte yoo xam ne ñoo ko teg ci suñ xel ba yowmal xiyaam duñ dem dañuy mel ni kuy wër garab rek doxa dox ba bëgg a dee te déplacé wu fi nga nekk mënuñoo xëpp yërmande yàlla yàlla mi bind wërsëgal téye bakkan moo koy boyal moo koy rey mënuñ koo xëpp yërmande lu mu wax xatte ko suñ yërmande ak suñ jàmm dong moo ca ne mënuñoo xëpp xiina yàlla ci jaamam yi yàlla xiina ji mu xam ci jaamam yi mbindee fa mënu koo xam kon ay droit de l'homme ak xatte yi ñu indi ñu yépp nañ ko sànni te jël yàlla bi mooy bu jub moo ñu mën a may jàmm àdduna moo ñu mën a may jàmm àllaaxira rawatina kim jaarale xatta bi mu am ci ñun yërmande joo xam ne kenn xamu ko ba mu wax ko ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin muy sayduna muhammad kon xoolal rek li fi li fi li fi alquran fekkoon njëkk loolu benn benn boppam gëléem rek ñi rayee cee rayante rayante lu ëpp junni nit benn gëléem ay téeméeri junne nit dee ca xeex bi fi yonent bi fekkoon diggante aw soo xasraj ñoo bokk benn maam xëy xëylatu mooy seen maam waaye terewul xeex nañ lu ëpp téeméeri xat ba mu mujj benn ngoon mu mu mu jubale leen sànni seen ñaari tuuri tudde leen ansaarul diini lépp bu xeew leen ci ci ron buum ak lislaam gu am yërmande gu matale ji le rek kon nag alquran a ngoog buñ bëggee xam jàmm daal walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab buñ ko defee rek am jàmm su ko defee nag eh, eh, bu ko defee nag kon attayaa ngoog nañ ci bàyyi xel kon nag yàlla ngoog nañ jël xatteem yi buñ ko defee am jàmm su ko defee waaye feek ñi ngi bàyyi xatteem yàlla bi duñu am jàmm wallahi tekkiwut ne innahu laysa al intiqaam wa laysa wara al ahqaat innama huwa ajalu min dalika wa ala innahu lil xayaati wa fi sabilil xayaati bal huwa zaatuhu xayaatun wallahi yàlla tegul ñu ne ku rey rey leen ko jublu ca ak fayu ak mbugal ñu deful ko ngir ak soxor yàlla màgg na kawe walis ak soxor wallahi dafa ñoo yéene dund yéene ñu sécurité yéene ñu teraanga yéene ñu ak dal ba kenn ku ne loo xamati xam ne ñoŋewu na sa bakkan bi ñoŋewu ndax lislaam lu ko tax a ñëw yépp mooy sàmmal ñu juróomi yëf yi su ko defee kon fexe ba sàmmal sa bakkan bi ba tax mu xaraamal rey nit sàmmala la sa xel mi tax mu xaraamal naan sàngara sàmmal la sa alal ji ba tax mu xaraamal sàcc sàmmal la sa dere bi ba tax mu xaraamal xaste sàmmal la sa askan wi ba tax mu xaraamal njaalo kon xamul dara lum cay def lu dul suñu jàmm suñu teraanga suñu xéewal bu ñu xoolee ci jëtenu rëbboo danañ fekk yàlla rek dafa ko yoonal ngir ak maanaam sàmm sécurité ci population bi sàmm sécurité bu mat sëkk tamit ci mujtama bi ñëpp xam jàmm foo nekk sa xel mi dal moo tax mu ne rëbbookat yi bu ngeen leen jàppee nañ leen rey ne la si nañ yuhaaribuna laa wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasaad yu yuqattalu aw yusallabu xatte booba danañ ca ñëw loolu la lam ci jublu yëpp bëgg pénc mi xam sécurité am dal ci alal yi ci njaboot gi ci bakkan yi ci lépp waaye boo gisee li tax mu andi tamit gëteen ci sàcc dara taxut lu dul bëgg ñoo xaaral suñu alal yi ba nit ku ne lu am mu yëg ne moo ko moom waaye léegi toll nañ foo xam ne li nga moom mooma too ko mën nañ la fa fekk rey lañ jël sa alal ja ndax nit ki bu ko xóoree ne bu bu lekk bu bu sàccee ñu dagg loxoom ndax loxo ba loxo ba jabet na te buñ ko bàyyee mu wàll ji jëmm ja ba wàllaale société ba kon nañ likkite cër ba rek mu am jàmm société bi am jàmm ba tax ba mu ne wassaariqu wassaariqatu faqtau aydiyahuma boo gisee tamit yàlla li tax mu teg dësën ci am njaalo jubluwut ci lu dul sàmmal ñu askan yi waaye sàmmal ñu tamit der yi mu wattul ko ba tax ba mu naan azaniyatu wa saani fajlidu kulla waahidin minhumaa mi'ata jalda lu rekk la kon nag boo demee ba yëg na gétteen xikmatuhu la albaaliga ah daal lan lam ëmb lépp njariñ la waaye xamul lenn lu ca nekk lu ñuy lor su boobaa nag nga mën a sukkandiku ci alquran di ko dund ndax alquran naa la ko ku gannaaw sa àdduna bi ñagas waaye fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyaamati ama suratu taaha aaya cent vingt-trois ba ci cent vingt-quatre dëgg-dëgg saahir bi waxam ji fokk ma dugal ko ci wax ju xam-xam solo benn saahir dafa wax ne alxaqu anta wa anta israaqu lhuda wa laka alkitaabu alxaalidu safahaati wallahi dëgg dëgg dëgg dëgg daal mooy yow yow mii yaay kiy jollil njub sa téere bi la yow yonantu bi mooy li nga xam ne moo biil ay safaxaatam lañ fiy biil ba péncam yàlla wallahi man yaqsidu dunya man yaqsidu dunya bi xayri hadika ay yalqaha tiihan min al ahwali wa xulumaati képp ku jublu àdduna te jaareewut ko ci sa njub gile dana dajeeg ngëlmande dajeeg ay lëndëm yoo xam ne du ca génnati ba yowmal qiyaam walaw sarraqa al qawmu alkibaaru wa garrabu fa ilayka xatman muntahal xatawaati wallahi ñu jublu woon penku ca nit ñi buñ jublu woon penku ñu màgg ña ak ñu jublu xarfu yépp wallahi yow mi ci lu war far force yaay daytalu waayu jéego yi buñ mujjeewut ci yow wala ñu njëkkee ci yow rek seen lépp yàqu dalat dalat ulumuhum raxma wa taarradu li mahaliki xota xataraati mu ne ñoom de sànku nañu ànd ak seen ak ñor ga ak seen xam-xam bu foor ba xam-xam ba pare sànku nag moo gën a métti moo tax gaarlu nañ ak ay alkande yoo xam ne yu dansé la te mënuñ ci caa génn kon buñ bëggee am jàmm nañ bokk sukkandiku ci àtte yàlla bi la buñ ko defee rek am jàmm kon nag aaya ji tënk ko daal mooy yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla dogal naa ci yéen na ngeen attexoo ak fayu gu toll ni liñ leen tooñee ku dëgg loxoom jàmbur dagg leen loxoom ku fukk bëtam jàmbur fukk leen loxoom wob fukk leen bëtam ku xaañ nit xaañ leen ko ku gaañ gaañ leen ko ku faatal bakkan faat leen bakkanam ba bu ko xóoree dànkaafu yooyu moo ne ci pénc mi ñëpp xam jàmm na nag ñëw yi nangu na nangu fayu ak yi nangu fayu yëpp danañ ci egsiwaat su ko defee ngeen yëg ne ak musaawaat ak tolloo moo fi nekk bu loolu xamee rek danañ dàq ak tooñaange bu dox ci seen diggante bu leen rayeti benn gor ci sababu ne faa ay gor waaye bu njëkk ba arab yi dañaan fekk ku rey kenn nit ñu dem rey téeméer nit watee ko ko waxoon naa la ko su moom nu hindin basara niiraanu yëfi caaxaanam yooya bu leen rayeti jaam ki ne dafa rey gor maanaam bu leen rayeti gor kon dafa rey jaam jaam bu reyee gor dañ koy rey waaye yéen nag bu leen fekk gor bi rey jaam bi bakkan yeexi mu ñu valeur ngeen di rey gor ba waaye jigéen bu rayee góor te muy gor dañ koy rey bu jigéen reyee tamit dañ koy rey bu ko góor rayee dañ koy ray kon dee leen rey kenn ci kenn waaye bu leen rey mbooloo ci kenn waaye nag mbooloo su fekkee dañoo bokk kompaloo ray kenn nit ñoom mbooloo ma yëpp la ñuy boole ray ko loolu la Abu Hanifa gëm loolu la imaamu Malik gëm ndax su fekkoon ne mbooloo buñ kompaloo rey nit kenn du ko rey kon kay mbooloo dañ fiy nekk di agressé nit ñi rek di leen rey rey ga kenn xamut fu mu jëmati moo tax kon la gën a wér mooy dañuy rey mbooloo ci kenn loolu mooy mashabul jumhur loolu lañ gëm matul arbaa yëpp loolu lañ jëm ne anal jamaata yuqutaluuna bil waahidi loolu tamit seen tegtal lu leer la bokk na ca Omar radiyallahu anhu wax ne moom moo ne qatala an maanaam maa ruwiya an Omar qatala sab'atan fi gulaamin qutila bi Sanaa Sanaa wu Yaman dafa amoon benn xale buñ fa rey bañ ko gëstoo juróom-ñaari nit ko ay Omar rey ñëpp lu ca teg dafa ne wallaahi walaw tamaa la alayhi ahlu sanaa laqataltuhum laqataltuhum waa sanaa wu yaman yëpp buñ kompale woon rey kenn kii ñoom ñëpp laay bokk rey kon mbooloo bu ñu bokkee di wa rey suñ dàngam di wa xas suñ baay diwa wa saaga suñ baay kenn ku ne wuti sémmañ fekk ko fa rey ko ñii taxaw ñii socca ñoom ñëpp la ñuy bokk rey leen ibnu kasir loolu la wax mu ne loolu amuñ ci wuutee ci jamonoy saxaaba yi mujj na nekk sax masalatu ijmaaya loolu la ñëpp dëppoo ñu tegtaloo xadis bi yonantu bi ne law anna ahla samaai wa ahla al ardi fi dami muminin la akabahum llahu fi nnaari xadis la bopp tirmisi yu moo ko solo mbokk ci xadis abi hurayra ya yonentu bi ne waa asamaan ak waa suuf buñ bokkaale woon ci dereeti benn jullit ñoom ñëpp yàlla këpp lañ ci safara kon foofa kay comme nag bugalam àllaaxira la leen ko yàlla boole kon far force gën a xoyof ci dañu ni boole mbugalam àdduna mii nag kon nag fa istarakoo fi al-uqubati al-uxrawiyati fa innahum yustarakuna wa fa innahum yastarikuna maanaam fi al-uqubati ad-dunyawiyati aydan kenn mënu ci dara dañuy dañuy bokkaale dañ leen koy boole tamit wala nga ne yustarakuna def na boole leen ba tey fi al-uqubati ad-dunyawiyati mu jeex te saariya bi di yonent bi li mu jàngale dafa ne wala kum fil qisaasi xayaatun kon nag mbooloo buñ xamoon ne ñoom buñ reyee kenn. ci ci dimbalante kenn du leen rey xisaas amul foofa kon kay dañuy soxlante rek mbooloo di agressé di rey nit ñi da kon rey ga kenn xamul fu mu yem moo tax la wax lima naasu an la laa tuqtalu bilwaahidi la taawana al aada ala qatli aadaayihim summa lam yuqtalu fa tabiu dimaau naas bu ko defee wa yantasiru lbaxyu walfasaadu fi l ardi kenn du xam fa muy jëmati kon mbooloo bu bokkee rey nit donte kenn la ñu kompaloo ñoom ñëpp la ñuy rey bàyyi ji bu reyee doomam reyab tayef bu ñaaw taxaw ñàdd ko dañ koy rey loolu la imaamu Malik gëm waaye su fekkee ne nag rey bu dul loola la kenn du ko ca rey waaye danañ xiisal dée ji ni ko risaala indee xalil indee ko ko laaw ak toxfa boo demee da nga ci fekk dée ji niñ koy xiisalee ci gëlëm ya kon nag xam naa boo mu toppee suba ci kartanal yàlla ya ayuha yooyu nga xam ne mooy ñeenteel bi jeex na alhamdulilah ba ma toppee suba nag ma ñëw ak yow ci juróomeelu yaa ayyuha ji koor lay wax nag muy yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaquuna mooy nekk suratu baqara aaya cent ba ci aaya cent quatre-vingt-six ju gudd la dana nekk maanaam ñetti aya waaye nag aaya yi dañoo guddante waaye nag suba ci waxtu wi lay doon mooy nekk suñu bopp darsu ma wax la koor ñaata yoon la ko yàlla tudd ci alquran koor ak xeet yu jiitu dañ ko daan xooree waaye tamit koor ak lañ ko farataal ci xeetu yonantu bi koor ay njëriñ yu rëy yi mu ëmb waaye suma ci waxtu wi la insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.